bu farloo ba sellal ko it sellal gi mu mel ne jaamu yàlla tuyaaba la ci am ndax nee ñu liggéey bi gën a jafee sellal sellalee day am ci xeeti daraja yoo xam ne yonent yi sax duñ la ko ëppale mel nag ngay jaay ak di jënd woote ni ko yiñ ciy tere def naa ne ci conférence port ba xam naa ci mbir yi jaay jënd yeneen métier yi ci des it yëpp noonu la demee sëñ Touba nag radiyallahu taala waxtaanam ku fa masaan toog mag ñi nga xam ne ñoo fa daan toog man fekki mu koy wax mag ñi nga xam ne dañu daan dégg waxtaanam ne boo fa jógee da nga toog weer li mu waxoon ne ci yow sa xol dana tiit sa xel mi dana root sa cër yi dana ko yëg loolu mooy nitu yàlla dëgg kuy fóot bàkkaar yi nit ñi sallallahu alayhi wa sallam def ne yéen saaba yi ni ngeen di mel bu ngeen toogee fi man may waxtaan ngeen di ma déglu wala ngeen di ma xool bu ngeen mënoon a wéyee melo woowu da ngeen di jàlloog malaayka yi di joxanteeg ñoom loxo di wax ak ñoom ndax euh, nitu yàlla bu fekkente ne toog nga fi moom mu dee wax xalima gañ la doon bindalee lu bon lépp dañ koy dem di bind di la bindal lu baax sa daraja it fa mu toll woon dañ koy yëkkati di yëkkati ba ba ngay tàggoog kooku boo tàggoog moom it la mu waxoon feeg yaa ngi koy fàttaliku ñuy yëkkati sa daraja di far sa ay bàkkaar kon dafay loo xam ne am na njëriñ ay jullit yoo xam ne dañoo boole seen bopp boole seen xol suñu borom day boole ndee seen daraja di ko yëkkati ba ba ñoom ñëpp ñuy tàqali ko wala ñu am ñu amante ay bañante ak i noone ci seen diggante feeg loolu amul dañ leen di yëkkati ba faaw gis naa ci benn téere bi Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu taala anhu bind nee na bis penc ba li muy tiis tiis juróom fukki junni at ñu xëj ci jant bi ba muy waaj bopp yi nee ñi nga xam ne dañoo soppante woon ngir suñu borom tabaraka wa suñ suñu borom daf leen di beerneel ci béréb boo xam ne ay lekk yu gën a neex ay naan yu gën a neex xet yu gën a neex place yu gën a rafet gën a tedd suñ fa jógee dañuy laajte ndax bis pénc ba kañ la ñu ne leen wéy na foofa la teggee jëm àjjana loolu jar na lu nekk kon soppante ngir yàlla li ngeen di def daje xam ne yàlla rek a tax wuti yàlla ci biir cadre l'islam ci yoonu Sëriñ Tuuba nekk na loo xam ne dara mënu koo wutu dara mënu ko wut yonent yàlla Moussa du ñàkk ngeen dégg ko ci kaset yi sax ba tàyyi alayhi salaatu wasalaam bi ko suñ borom ne loolu ma sa defal mu tudd julli yi mu julli yëpp mu ne ko loolu sa bopp nga ko defal mu tudd koor bi tudd joxe bi mu ma def ci lu baax rek mu ko mu ne ko loolu lépp ko sa bopp nga ko defal ne kon nag man xaw ma lu ma la mën a defal ndax mas naa la defal dara mu ne ko lan de bu fekkee ne am nga koo bëgg ngir man ngir man yàlla nga xam ne yàlla doo nga tax nga bëgg ko de kon liggéeyal nga ma loolu nga ma defal bu fekkente ne mësuloo ko def li defaloo ma dara loolu nag boo ko defee defal nga ma li ma neex defal ma li ma bëgg kon gannaaw defal suñu boroom la lu ko neex mooy ci jaamam yi nga bëgg leen ngir jëmmam moom suñu boroom wala nga yëkkati leen bant ngir moom suñu boroom wala lépp loo def rek ngir yàlla ndax dañu ne wal amru afdaluhu ma kaana lillaahi lépp lu baax lu mu rëy rëy rëy li nga def ngir yàlla rek mu ci ëpp doole li nga def ngir yàlla mu ci ëpp doole ndax yéene ji mooy tax ndax jëf bu ko nit ki jëfee ba noppi dañ koy teg ci kanam suñu borom tabaraka wa taala mu xool ko bu ko xoolee leer googee ci jollee day dugg ci xolu jaam bi mu gën a sawar liggéey bu fekkente ne jëf ji ju ñu nangu la bu ko defee ñu fab jëf ji dugal ci magasin di ko fa dencal borom ba yomal xiyaam su fekkee ne yéene ji nag moom daf ci ànd yéene ji moom daf toog ci kanamu suñu borom mu di ko xool ba faww loolu tax yéene ëpp doole jëf ndax yéene ci bopp moo jur jëf jëf joo xam ne yéene waralu ko doo am njëriñ waaye jëf joo xam ne yéene ko waral kon bu du noonu yéene ji doo jëf te yéene lu koy indi mooy da njëkk a xam xamal lii ne lu baax la xam lu muy jariñ nga soog koo mën a bëgg yéene soo a mënee a ñëw kon li jiitu mooy xam xam ne lii lu am njëriñ la lu baax la bi nga ko xamee ba noppi xam gi tax nga bëgg ko bi nga ko bëggee bëgg gi àgg ci